ba yàlla dogaleen ñu am feebar bi nag ñuy faju hôpital ñu gis ne que feebar bi dafa diis dafa metti am na ñoo xam ne ñu ngi koy dund ak gàcce te du feebaru gàcce ndax feebar feebar rek la léegi nag ba loolu amee nag ñu taxawal association bi pour waxtaan ak askan wi pour xamal leen lan mooy feebar bi bu ñu leen xamalee lan mooy feebar bi ñu xamal leen ne leen feebar bi dafa nekk feebar boo xam ne léegi ku ko ku si faju da ngay wér mais il faut que ñu teel ko xam pour man di waxtaan ak jigéen ñi di pour pour mën a pour mën a boo boo teelee fa boo boo ko teelee xam rek da ngay teel da ngay faju te da ngay wér léegi nag loolu la ñuy waxtaan ak askan wi di leen ko wax ñi nga xam ne dañu feebar ñu di leen ànd ñu di leen accompagner di waxtaan ak ñoom di leen defal ak di leen jàppale daal loolu mooy association bi ak tamit di waxtaan ak euh, suñu état bi ak euh, ñi nga xam ne mën nañu dimbali association yi ndax association bi li ko tax a jóg mooy dimbali euh, doomu aadama yi ndax feebar bi dafa nekk feebar boo xam ne dafay laaj xaalis bu bari pour xaalis bu takku pour faju kon nag may profitoo tamit di lancer appel euh, képp koo xam ne rek nga dimbali suñu association mooy association cancer du sein Sénégal kus kus ku si bëgg dimbali association bi rek avons une page Facebook am Instagram am Twitter am numéro téléphone pour bëgg dimbali mën nga 77 358 01 47 voilà pour ñu appeler suñu jigéen ñi pour ñu mën a ah, faj leen si anam yoo xam ne daal dana sedd si Assalamu asalaamaaleykum association bi nag bari naa on est plus de 200 300.

ba nga mën a dellu si sa biir njaboot ak sa biir kër. léegi ban appel ngay lancé état du Sénégal nag en tant que président association. Ah, ah appel bi may lancé euh, état du Sénégal mooy gratuité garab bi gratuité soins yi parce que feebar bi dafa metti feebar boo xam ne lu mu néew néew néew di nga génne million pour faire faju et nga état bi am na lu mu si jot a def mais la la mu jot a def euh, li li si ëpp moo ëpp li mu jot a def ñu ngi koy ñu ngi sant nag suñu président de la République son excellence monsieur Macky Sall si ndëgëni si daaw may nañu gratuité chimiothérapie mais laataa tangay def chimiothérapie nak dafa am leneen lo xamne ne da nga ko wara def muy euh, euh, pose de diagnostic ndax cancer du caageen ne da ngay dem ci docteur rek mu xol la ne la da ngay da nga cancer dafa bari analyse yo xamne ne da nga ko wara def ba ñu ne la dafa kan da nga cancer nga am yeneen analyse yo xamne ne dañ koy def pour xam ban façon cancer la nan lañ koy fajee kon nak loolu tamit lu jéggi dayoo la ñu ngi lancé waat appel rek comme ni ma koy faral di waxee suñu cri de cœur di ñaan suñu njiitu réew ah ñu jéem a defaat leneen rek mooy gratuité des soins ndax jigéen moom si kër lu am importance la kon nag il faut ñu jàppale ñu si.